Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbok julit di yi soppe yi xarit yi fa tabaarakallaahu ñi nga xamni dañuy saxo rek di top prestige ci jamono ju ne ñu ngi ñëwaat seen émission bi nga xamni ni mooy xam sa diine fa tabaarakallah ñi ci faram-fàccee lépp loo ni rek day jëriñ doomu adama ci diineem ak ci aduna tay nak ñu am gan go xamni ni euh, gan go spécial la fa tabaarakallaahu li arab naan takallam tuhraf waxal ñu xam la xam naa insha allahu taala bu duggee dinañ xam mooy kan xam naa dañ koy bàyyi rek Fatimatu Zahra Njaay di doom ci oustaz Mouhamad Xaali Njaay ñu bàyyi ko mu nuyu ak téléspectateurs yi bismillahi Fatima waa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Ousmane ñu ngi lay nuyu yow tamit di la ziar sunu promotionnaire macha allah ñu jàngandoo بعد أعوذ بالله سمين علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أحييكم إخوة الإيمان بتحية الإسلام وهو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bismillah tabaarakallaahu kontaan nañu ci nuyoo boobu macha allahu Zahra Fatimatu Zahra Ndiaye tey nag ñu dalal la war a waxtaanee loo xam ni incha allahu taala dafa jëm ci wàllu sëy xam nga dafa bokk ci contrat yi nga xam ni yàlla daf ko signé ak doomu aadama mooy sëy mu nekk loo xam ni euh, ci jaamu yàlla yi la bokk yàlla di ko fay comme ni mu koy fayee ci julli comme nim koy fayé ci koor comme nim koy fayé ci azaka comme nim koy fayé ci aju màkka yàlla diko fay amul banex bu ci nek fa tabarakallah tay nak ñu dalal la bëggoon la laaj ay question yo xamni dafa jëm ci walu bob euh Zahra ñu bëggoon xam buñ la doon laaj fa tabarakallah yan àq ño dox ci digënté jëkkeur lan nga ñuy tontu wa fa tabarakallahu ahsanul halihin sayyidna usman karramallahu wajha ah yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sallam dafa ñew wax ak ñun ci soxna ak borom kër jigéen dafa am lu ko war ci borom kërëm borom kër dafa am lu ko war ci soxnaam mu ñew indi ci hadith law kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartu nisaa ay yasjuda li azwaajihinna lima jaala llaahu lahum alayhinna min al xaq bu fekkoon ne damay digal nit mu sujootal nit dinaa digal soxna mu sujootal borom këram ngir matal xaq yi nga xam ne moom la ko sunu borom subhaanahu wa taala sant ci boroom këram soxna li mu war a njëkk a def mhm. mooy topp ndigal bàyyi tere mhm. li ko boroom këram di digal ci lu baax mhm. mu nekk ca li mu koy tere ci safaan mhm. mu bàyyi ko kilifteef gi soog a ñëw ak toppatoo gi ak def li la war war war la ndax comme dañu wax ne soxna bu faatoo boroom këram gërëm ko mu dugg àjjana kon sëy du caaxaan uh-huh. isa sallatil maratu xamsaha wa shahraha wa xafisat farjaha mhm. wa ataat zawjaha mhm. daxalatil janna mhm. kon loolu moom Seydina Ousmane yamul ak dara loo xam ne sa buntu àjjana da cee taxaw kon loolu loo war a seet seetantal ko xam àq yi la ci lislaam sant nga doxal ko insha allah waaw fa tabarakallahu lu am solo la muy xadis boo xam ni jar na sax nga tekki ko suñu bëggoon nga tekkil ñu ko ni ngir téléspectateurs yi gën koo xam ndax jigéen ñi euh, ñu ci bari fa tabarakallahu la yàlla xam doy na ñu bëggoon nga faram-fàccee xadis bi. waaw xadis bi waaw bu fekkee ne moo ne isa sallatil maratu xam saxaa bu ah. fekkee ne soxna bi waxtu juróom bi ñu ko sant. Mhm. lislaam sant ko ko mi ngi koy julli. Mhm. sàmm pëyam topp boroom këram. Mhm. bu dee borom këram këram ko day dugg àjjana. mu woor weeru koram en même temps mu woor weeru koram. bu faatoo borom këram gërëm ko mu dugg àjjana. waaw fa tabaarakallaahu muy xadis boo xam ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax kon gis nga bokk na ci contrat yi respecté jaamu yàlla ndax léeg-léeg da ngay gis sëy yoo xam ni jëkkër ji du sensibiliser jabaram sax ci julli da ngay gis ñoo xam ne léeg-léeg sax sens contraire bi mooy am. fa tabaarakallaahu ku jigéen ki sax muy julli waaye jëkkër ji du julli. Mm-hmm. gis nga boo demee wa daraballaahu masalan lillazina آمنوا mraata نوح wa لوط فتبارك الله nga jàng ci diggante firawna ak aset bint muzahib ni mu yese won mom moom te jigen ci fa tabarakallahu aseedam ba bok ci soxna yi nga xamni ay soxna lañuy doon ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon lolu leçon morale bu am solo la ñu bàyyi xel bu baaxa baax kon bépp jigen bu nek ci bir néegu sëy na respecté juróom juróomi julli na wattu payam wattu boppam uh-huh. parce que yonent bi nee na jigéen ji gën ci jigéen ñi mooy jigéen ji nga xam ni boo ko xoolee mu kontaan loola uh-huh. boo ko xoolee rek kontaan uh-huh. boo ko digalee mu def ko boo fàggoo mu wattu la ci boppam wattu la ci alal kon fa tabarakallahu kontaan nañu ci loolu ba tey dañuy desandi ci biir thème bi rek ci wàllu biir néegu sëy Zahra ñu gis ni jamono ji ñuy dund relation yi ci biir néegu sëy yi jafe na torop metti na torop coow li bari na conflit yi bari na divorce yi bari na loolu ndax dafa am manquement boo xam ne dafa manqué ci cadre charia wala ci cadre adduna moo waral loolu. waa loolu nag manquement bi ci waajur yi la. Mhm. waajur yi dañ ci am part de responsabilité bu rëy. Mhm. parce que su fekkee ne da ngay sëy. Mhm. nga yor njaboot. ni nga toll foo xamante ni ni nga leen di jàngalee. ci classe ba fexe ñuy jàngi. fexe ni ñu mënee julli mm-hmm. fexe ñu jàng ba mën woor mm-hmm. fexe ñu jàng ba xam ni ñuy natt azaka xam li leen war mm-hmm. ci charia xam li leen war jàng nañ français ba xam nañ ci li leen war noonu lañ war a fexe tamit xam yan xàq moo leen war seen diggante ak seen borom kër te yow yaay ji tamit da nga war a wone exemple exemple bi mooy ni ngay tarbiyoo sa borom kër dina toll foo xam ne sa njaboot bu ñu commencé xàmmee waratoo leen koo nëbb sooy raxas say tànki borom kër sa njaboot war nañu fekke ni nga koy taajalee ñam say njaboot war nañ koo fekkee. Mhm. ni ngay waxee ak moom ak comportement bi ngeen di yor ci kër gi yéen ñaar seen njaboot war nañoo fekkee. Mhm. mu nekk comportement bu am solo boo xam ne. Mhm. xale yi mën nañ cee roy. mën ngeen a laale léegi jubóowaat léegi. bu ko defee xale yi ëllëg dañuy xam ne. bëñ ak làmmiñ la ñuy doon. dañuy laalante waaye bu tee du tee nañuy àndaat. waaw loolu lu am solo la. Mm-hmm. ci comportement bi nga xam ne war yaay ji war na ko jàngal doomam. Mm-hmm. ci sëy ba mu xam ne nii lañ war a defee nii lañ war a defee. Mm-hmm. bu ko defee bu ëllëgee bu demee sëy moom tamit comportement boobu la fay yor. waa incha allah maanaam daal bu ñu la déggee bu baax parents yi dañu war a préparer seen doom yi avant ñuy sëy. dëgg la jàngal leen lépp lu jëm ci wàllu sëy. nan ngay nekkee sa borom kër. nan nga koy toggale parce que loolu aussi lu am solo la fa tabaarakallahu sa borom kër da nga koy tarbiyu ndax Seydina Muhammad bu doon sujjóot dina àgg fenn fii kenn dina sujjóotal kenn kon damay naan jigéen mu sujjóotal jëkkëram nga wax ko sànq fa tabaarakallahu mooy bépp jigéen boo xam ne am na ngërëmal jëkkëram rek dina dem àjjana loolu lu am solo la kon jigéen ñu bàyyi ci xel ba tey fa tabaarakallahu Zahra dañuy ñëwaat di rafet lu nag euh, macha allahu taala euh, réponse am na solo ci biir néegu sëy dañuy ñëwaat ba léegi ñu gis ni am na ci xeetu sëy yoo xam ni fa tabaarakallaahu coow li day jikki-jikki dépassé biir néeg bi maanaam coow li dina dem ba ñoom ñaar kenn dootul mën a regle sa problème xam nga yàlla dañu fa imsaakun bi maarufin aw tasrixin bi ixsaan na ngeen ànd ànd bu rafet soo leen ko mënul ngeen tàkkalikoo tàqalikoo bu rafet bu ñu dundee problème boo xam ne dem na ba dépassé biir néeg bi nu ñu war a def ñoom xam nga dafa alquran dafa ñëw ba tey waxaatoon ak ñoom hmm. suñu borom subhanahu wa taala baada hmm. auzu billahi min shaitan rajim hmm. wa taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan soxna ak borom kër dafa am relation bi lu leen ci war loo xam ne yoonu yaay nekku ci yoonu papa yoonu maam nekku ci ñi nga xam ne dañ leen a takki woon bañ leen ñaanee ca jàkka ja ba pare lañ pare ci lenn li ci seen relation gàjjanti rek la ñu war mooy soxna si gis na loo xam ne ci borom këram neexu ko mhm. mu dem laaj mag waxtaan ak moom mhm. mu corriger ko ci lu baax mu dégg ñëw toog muñ mhm. borom kër bi dem gis loo xam ne ci soxna si jaaduwul mu dem laaj xaritam wala mu laaj papam wala mu laaj nijaayam mu teg ko ci yoon mu ñëw dellusi mhm. ñoom ñaar dundal dundante noonu moom moo gën a yomb. Mhm. ñuy xaar nit ñi di ñëw di toog di leen arranger. Mhm. parce que bu fekkee ne yéen ñaar am nañ complice bu dox ci diggante soxna ak borom kër. ku góor ki di góor góorgóorlu ca damay wax rek li may wax dafay ñëwaat ba tey ci waajibaat bi. ku góor ki xam li ko war ci soxnaam. mooy dundal ko. wodd ko. dëkkal ko dëkkoo ko. li ko sharia sant bu ko dee def. du mën a problème du am de waaye du bëri. soxna ci tamit bu fekke ne mi ngi gor ba top na jëkkëram ci lim mhm. koy diggal ci lu baax lim mhm. lim koy téré ci lu bon mu bayiko mhm. limuy def mu xam ko fi muy dem mu xam ko buy genn taggo buy ñew dik gis nga digënté soxna ak borom kër yow soxna bi bu fekke ne lepp loy dugg sa borom kër and na ci ak yow à 100% keneen le reste amu ci solo torop torop parce que ki muy sa kilifa ko xamne bañ nañ ko yonent sallallahu alayhi wasallam amna soxna bo xamne way juróom dafa jagadi hmm fekk jeukeram tukki won ta tàgguwu ko won saa yu ñëwee yonent bi yonent bi del ne ko delloo ko ndax sa borom kër mhm. bi way juróom bobu genné aduna yonent bi neena dañu jéggal bayam bobu duggal ko aljana mhm. ndax limu mu digal borom këram mhm. kon koku mom moy essentiel ci yow mom mo wara wax defal nga def mo wara wax bàyyi nga bàyyi mais légui phénomène bi li tax mu xawa yaqku uh-huh. da ngay gis euh, lo day ñew sax ne jabaram jabaru càmmeñam mhm. arrêté sa njur mi dafa bëri tax di yow ñee ñoo takkante ñooy sëy ñooy nekk mhm. yow sa yoon nekkul ci seenu njur ñoom ñaar mhm. nga gis papa joo xam ne dafay ñëw ne lii laa bëgg a dogal ci kër gi ñi nga xam ne daal dañoo nekk ci biti nañ jàppale ñaari wey dencante yi ba seen diggante rafet loolu moo gën a nekk essentiel ci ñoom que ñuy ñëw di ut lenn lu ñuy doxal ci ci ci seen diggante rafet la sax ñaari woy dencante yi kenn ñëw kalaame la nga woo kenn ki waxtaan ak moom woowaat keneen ki waxtaan ak moom mhm. bañ leen a boole mu mel ne taaj mhm. ndax boo taajee kiy wax kiy wax rek doo xam kuy am dëgg mhm. mën nga leen a jël kenn par kenn teg ko ci yoon ku su dee bëgg bëggante nañ te yàlla tax bëgg nañoo sëy te yàlla tax ku ne xam na mission am lan la dinañ juboo te kenn du leen taaj ndax macha allah loolu moo ëpp solo macha allah macha allah am na solo fa tabarakallah yàlla na yàlla barkeel la am na solo ba tey dañuy ñëwaat Zahra ci biir néegu sëy yi euh, xam nga yàlla dani wala rijaal alayhinna daraja maanaam góor ñi ñooy yilif jigéen ñi baatu kër gi góor ñee ko yor ñu gis ni jamono léegi yil jigéen ñi sax ñu yilif góor ñi ñu seetlu ni tamit benn jigéen toogatul ci biir néegu sëyam nit man da nga ciy takk nit sax mu ne man du ma yàq yàq ak a togg taxul ma fay ñëw euh, da nga may jëlal appartement nii nga may defal du ma dëkk ak sa papa ak sa yaay te jigéen ñi léegi dem nañ ba léegi bu góor ñi génnee ñoom dañuy génn est-ce que charia daganal na góor génn jigéen génn liggéey yor responsabilité ci pénc mi comme ni mu ko dagalee ci góor ak baat bi kan la ko yàlla jox xam nga tey dafa wax ne alxuraan dafa wax ba tey baada auzu min shaytan rajim arrijalu xawaamuuna ala nisa bima faddala allahu baadahum ala baadin wa bima anfaqu sadaqa allahu alazim baatu kër góor moo koy yor ba ilaa yawmin yub'asun mhm. parce que moom la yàlla wax ne moo war a joxe dépense mhm. moo war a moo war a yàq mhm. moo war a joxe dépense moo war a tudd doom jox ko santam moom la jël teg ko ci kaw jigéen ki moo naan def leen ñu def moo naan bàyyi leen ñu bàyyi su dee ci góor góorlu bi nag àdduna bi léegi dafa am nu mu tëddee dund gi cher na yëf yi metti na pour sa doom jàng-jàng bu baax faaw nga génn xaalis bu bari pour sa mm. doom jàng mm. pour sa doom lekk lekk gu baax faw nga débrouiller tuuti pour xale bi lekk mm. su ngeen amee ñu war a faju bu ngeen àndantewul jàppalante rek kenn mën naa décourager mm-hmm. am na sëy yoo xam ne problème bi lan moo ko indi mm-hmm. soxna si dafa jéemul dara te borom kër bi li ko war àttanu ko mu japp na force borom kërëm daf ko wara defal li ak li moma wara jox depp ndawtal moma wara natal a nattal yi moom te jigen gi sa bëgg-bëgg bëri mm-hmm. bu sey bëgg-bëgg bëri sa borom kër la ca posam du ko mëna satisfaire mm-hmm. mais bu la yalla maye katan may la xel war nga mëna xey tak sa sœur dem uti indi ci kër gi ku goor ki uti indi ci kër gi ngeen and jàppale njabot gi ci ñang hmm. mi jàppale njabot gi ci wër gi yaram bi hmm. jàppale lenn ci ay mbokam parce que hmm. parin saay sa mbokku jëkkër ñëw fa du fa fekk sa borom kër pass ba koy jox bang koy jox boko joxul dara nan aka bon sama càmmañ ñang koy defal fekk na pass bi ngi koy jox mu passé ko wala teranga ji ngay yëkkati defal ko yow ya ko ñak yow ko jigen ki pour jox ko ko te suñu yaay ak sunuy mam yu jigen dañ leen fi daan fekk ñii dañ daan roose seen tool yi mhm. borom kër yi jàppale leen ñii dañ daan witt ci lëjum yi dem jaay ci àll bi def mën nañ faa def sax ay fan mhm. suñu yaay mën nañ cee jox exemple suñu yaay bu sogay mais bi mu dalee nekk ci commerce ak léegi mat na fanweeri at mhm. tey ay njabootam ñi nga xam ne xam naa leen gisuma ko leen gën a yaru gisuma ku leen gën a baax gisuma ko leen ëpp diine soxna ni na toog ci kër demul yàqul amul capacité de expérience bu mu yaree njabootam amul jikko ju mu yaree njabootam soxna di xey di liggey di wacc nek enseignant di doxal walam ci société bi ndax mi ngi jangal ay xalé mhm. nek ko xamne ne mi ngi ci hôpital bi di fajj di doxal walam ci société bi ndax mi ngi dimbali ñi wéré mhm. di doxal walam ci ko xamne ne mi ngi yor créer ay emploi yor fa ay doomi adama ñuy liggey di di fa jariñu mhm. mu gëna mëna yar njabotam ki tok ci kër gi ndax xamna capacité d'expérience ban la war a yare njabootam. ak lan la ko charia sant ci njabootam. ba ni na toppatoo borom këram toppatoo njabootam te du ko yàqal dara ci liggéeyam. fi am macha allah am na solo Zahra kon daal génn gi dagan na. jigéen génn ci këram liggéey dagan na kon nan ngay déggee wax xar na fi buyutikunna gi yàlla wax na ngeen sax seen biir kër yi waxar na fi buyutikunna wala tabarraj na tabarrujal jaahiliyatil uula buñ ko doon wax xam nga nee naa la aaya parinsaay aaye bu nekk day ñëw wax ak jamono kullu maqamin maqal ayah bi xañ na du soppiku mais jëf ci mom moo laaj parce que mën am yow so toge sa borom keur tok yéen ñaar ñepp ngeen dina am fay bo xamne am ci xalé yi deug la ndax yow mi nga xamne da nga jang affaireu fajj ba mën ko maîtriser ko société bi soxla la waxar na fi bu yutikul na bobu dalay teggi ko da nga wara dem liggéeyi pour jappalé sa société yow mi nga xamanteni da nga jang affaire oftalm nit ñi nekk fi seen bët di yàqu yow waqar na fii bu yutiku na dalay wàcc dalay teggi maanaam daal da ngay tënku ci condition bi la condition bi la charia tënk mais mën nga génn liggéey waaw parce que léegi sax booy xool Ousmane borom kër yu dañuy bëgg seen soxna yi génn liggéey te bi bu ñëwee wàcc bu la sa borom kër permettre nangul la ko bàyyil rek hmm. amatul dara lu lay tënk parce que lépp la sa borom kër digal te yàlla d'accord ci day dagan ci yow nga def hmm. ko lépp lu la tere. te yàlla tere la ko day dagal ci yow nga bàyyi ko. est-ce que dépense jigéen mën na koo jox góor. ah waaw waaw mën nga koo jox kay ah bu fekkee ne amul kay daraja waaw daraja boobu nga xamante ni yàlla wax na ko mhm. mën na nekk daraja ci kàllaama bi ci wax ji mhm. mën na nekk daraja ci bu amee doom ji moo koy tudd mhm. mais tey euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi doon sëy ak Xadija te Xadija moo ko ëppoon barke tey soxna bi mën naa ëpp fuuf barke borom këram. Mhm. mën na koo ëpp alal fuuf. Mhm. mais kàddu gi moom borom kër gi moo koy yor ba mhm. ilaa yawmi diin mais dépense bi moom mën bi mën na koo def parce que sëy bi dimbalante la léegi. mën nga koo yoreel dépense sa su dee amul dépense. te bëgg nga sëy ak moom te yàlla tax te bëgg ngeen a jur njaboot ndax njaboot gi ngeen di yaakaar a jur ñu ëllëg mën na nañoo nekk famille bu noble. famille bu mën a dimbali société bi. kon yaakaar naa ne war nga ko mën a jàppale. ci dépense mais li wax daal mooy yow yaa ko war a yor. waaw moom loolu moo war mais su mënta nekk ndax loolu qawwaamuuna ala nisaa bima faddala allah baadahum ala baadin wa bima anfaqu min amwalihim xam nga loolu dafa dafa jaral leeral téléspectateurs yi yàlla dani góor ñi ñoo yilif jigéen ñi ngëneel ñi lenn ñi ci lenn ñi maanaam bi ma faddala allahu baadahum ala baad ci lay yàlla gëneel ñen ci ci ñen ña wa bi ma am fakhu min am waalihim ak la nga xamne dañ koy dépenser ci seen alal xam nga jigen lépp lu dagan ci góor rek dagan na ci jigen wa ashiruhunna bil ma'ruf wa hunna mislu lazi alayhinna bil ma'ruf way lu yàlla waxat wa li rijal alayhinna daraja daraja kon fa tabarakallah jigen de jël dépense jox ko jëkkëram dara nekku ci waye ñoomit ñu xam ni responsabilité gini financement ci ñom la hmm sa jigen bu amone ay milliards. yalla néna na yow mi góor ya ko wara yor. ta dañuy gis légui góor ñu bari ñen ñi bok dañ nan duma tak ka social. Mm. loolu lu ko wara wa phénomène bobu ñi bëgg lu yomb lañ leen di tuddé góor ñi bëgg lu yomb. Mm. bëgg lu yomb bi moy lan da ngay tedd ci kër gi ku jigen ki dem jaay jën was jaay jën ndugu tok ñew togal la ci kër gi jox la. loolu yow déjà charia moo la njëkk a daanu parce que dañ ne liggéey jaamu yàlla la yow su dee sa doole may na la ko ak sam xel ak sa kàttan jógal nga dem uti mhm. loo indil sa njaboot ci kër gi mhm. mais waroo bàyyi kër gi soxna si kese mhm. soxna si tamit warul bàyyi boroom kër gi kese su dee xalaat xam-xamam may na ko capacité may na ko ndax da ngay gis léegi boroom parquet yu bari ñu tijjee fii di jaay cosmétique en général ñu ci bari dañuy tijji seen soxna ci wàll bi muy jaay maison bébé wala muy def dara mhm. légui bari na néna la goor ñu ñoo xamné ne yaa dégg lim wax duñ takk cas social légui bari na euh, goor ñu la naan sax utal mako xamné mhm. fuñ may njoojalee ginar fu may def VSD ah, vendredi samedi dimanche est-ce que est-ce que du tamit parfois euh ñak ñak gëm wërsëgu borom bi ci la parce que nit ki ya, li yalla ni goor yi jigen yaa ko war yor ah xam nga nak euh, wërsëg bi moom mhm. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يا الله من فوق تدو فجور تدو فجيجين كوي دوخ تي كاو سفرة من يا الله ما يرسى ورسى إن الله يرزق ما يشاء بغير حساب ما يرسى قال كم أن نعت الله من دمك كالكلا بتاعي دي نيو تي نيجو نيو جس نيجو نيو بري ليك دي أم جبر فري جين دي تيم بدي بدي دم دي دخان نيو بار نيو تواخ نيو نيتام دي جيجين نيو dañuy sañse ba rafet bu ñuy génn lañ koy def xam nga fa tabarakallah ku la xool fi nga génn mhm. donc rafet na yaa ngi ci télé bi sañse ñëpp toog di la seetaan mhm. mais tey sañse yu bari jigéen ñaa ngi koy def est-ce que jotul ñoom ñu toog di ko def seen kanamu jëkkër parce que charia dafa bëgg jigéen mhm. buy tegal jëkkëram ndékki sol lu rafet su koy tegal añ sol lu bokkuur la mu sol di di sañse ci kanamu jëkkëram ba nga xam ni jëkkër ji bëtëm bi du ko teg feneen mais am na jigéen ñoo xam ni dañoo dañoo jógewul xaw ma dañuy yaafus ah. xaw ma dañu dégg parce que charia uh-huh. charia dafa bëgg lu rafet uh-huh. xam nga dafa bokk ci contrat sëy bi uh-huh. boo takkee fa tabarakallahu jigéen ba pare lépp lu war ci moom boo ko defee moom it dafa am àq yoo xam ni dafa war ci jëkkëram bokk na ci àq yooyu di sañse mais seetlu nañ ni yéen boo leen di sañse da ngeen di génn ah da ngay gis xamna bo ne ah, fo jëm damay genn oh. loolu lan moo tax loolu lu waral loolu. nga sank dama la waxoon ya fi sàggan. sàggan moko waral man de Ousmane euh, franchement ci télé la tok hmm. waye sama jaxata ka ba yeer yeer njéemi mais ma ñora a Fatim Sarr darobe bi. Hmm. sama goor gu baax li xamna ne sañ sa ba koy defal ci kër ga. Hmm. mo dàq bi ma indi ci télé bi. <laughs> loolu mom alhamdullilah ala kulli hal ñi ci sante yalla <laughs> uh-huh. soxna dafa wara joggé soxna dafa war a jonge jonge du ci ni wax jonge jëf la sa borom góor ñi nga wax ne dañuy génn di doxaani ñu baal ma ci kàddu bi bu am na lu leen soxna yi doon téye ci kër gi rek awma yaakaar ne dinañ génn di seeti kenn ban téye war a téye ci bi ñu leen di téye mooy na lekk gi neex Ousmane hmm. lekk gi nay neex solin wi na rafet hmm. sol bi ngay sol yére yi ngay sol ci sa kër moo mhm. war a dàq foofu yi ngay sol ci biti mhm. mais sërëg ti set mël mhm. faw kaalawu baa nga tënju ku ko bëgg loolu kenn du la bëgg du la bëgg sa soxna sa boroom kër sax envie bi mu waroon a am ci yow dootu ko am parce que sa melokaan moo tax ni ngay taaje war nga koo mën a xam booy taaj booy taaj sa lekk war nga koo def ci bool boo xam ne bu ko boroom kër gi tiimee même su bëggut a lekk day am envie lekk kazalika noonu la sa melokaan ci kër gi même sa boroom kër bu ñëwee bu sonnoon sax fatiguement am day deñ mhm. ndax dina ko leer rek dina fi fekk jus bu sedd bu mu naan mhm. dina fi fekk soxna su rafet mhm. su solo ba rafet toog di ko xaar yow yaa war a dimbali sa boroom kër tënk bëtam ci kër gi ba nga xam ne du génn ci mbedd mi di xooli dara ci cadre charia yëpp waaw te lépp ci chariatul islam civilisation yi gën a rafet ci àdduna bi charia moo ko indi macha allah charia moo daq jàngale ni ñuy sëy charia jàngale na ko waaw macha allah tubaab bi ñëw <laughs> mu am juróom yoo xam dañ ko tënk ci wa na ki su saa uh-huh. muy juróom yoo xam ni uh-huh. dafa valable ci néegu sëy waa gi nekk wat maanaam nit booy takk nit dangay ngay am kàttanu takk sëy jabar uh-huh, maanaam da wér da wér kon ñi wérul ki nga xam ne nag wérit yi da koo dab ci biir néegu sëyam charia may na ko mu toog at pour fajo mais ki nga xam ni moom fa la wérul mm. noonu la judduwaale wérul mm. zahiran wérul baatinan kooku takk jabar xaram na ci moom mm-hmm. muy waa waagi mm. nun gu nekk nafaxa dundal mm-hmm. soxna boo koy takk da nga koy mën a yor mais am na ñoo xam ne poq su nekk la ñu yor sagaru matelas laa lañu yor mm-hmm. la ñu yor mënuñ ci dara Oh. ndékki bu ma mënuñ ko kooku takk jabar daganul ci moom dañuy oh. waxante dëgg oh. parce que ki ngay takk da nga kaa war a mën a yor jëlee ko kër ndeyam ak kër baayam na nga ko yor yorin bi rafet baax na nag ñi nga xam góor góorgóorlu mais ki nga xam ni café lu lu suukar café amu ko bu taxee jabar fu mu koy dugal te jigéen ñi am na ñoo xam ni góor gu wooye di lañu bëgg loolu dañ ko seetlu ci société da ngay nekk góor gu correct mel ni sama classe gi macha allah ñëw duñ la bëgg ñu dem xool keneen koo xam ni ab dóor sadig man la daf yàlla ma yàlla baal daal ñu bëgg ko mu ngi noonu saa gi nekk sadaax can li sin gi nekk sukku naa dëkkal uh-huh. ah wa na kaaf gi nekk alkiswa wodd muy juróom yoo xam ne fa tabarakallahu valable na ci biir néegu sëy est-ce que tamit juróom yooyu gisoo ni manqué na léegi ci biir néegu sëy yi wala waaw Ousmane macha allah rek comme ni ma ko waxee woon mm-hmm. xam nga góor gi nga xamante ni amul mm-hmm. mu ñëw mais mu am jom di góorgóorlu dajale si tuutam ba takk bu takkee soxna soxnaam jàppale ko dañuy duggaat ba tey rek ci phénomène góorgóorlu bi moom bu xëyee góor góorgóorlu soxnaam góorgóorlu ñu ànd góor góor ànd ak seen jom seen ngor seen sutura ak seen bëggante bu ko jigéen ki muñalee ko góor ki rek te ñu ànd ak jom balaa yàgg dara yàlla dina bu dikkul dina yónnee yow mi nga xamante ni nag dangaa wéradi comme ni nga ko waxee nii mm-hmm. li nga wax nga faju mm-hmm. ndax dafa am lu am ci soxna yi mm-hmm. am na ñoo xam ne ñu bari li leen di tax di génn dem di dugg ci naka sudul noonu tey dañ leen a joxul ci alal lu leen satisfaire comme tey lekk yi matul doom ya xiif amuñu luñ lekk mm-hmm. wala mënuñoo jàngi amuñu luñ jàngi jee mm-hmm. mën na koo tax mu dem dugg ci leneen mm-hmm. yàlla nañ ci yàlla musal ah, mu nekk doye di rek ak matadi nag waaye ku gëm yàlla ah. war ngaa xam ne gémmiñ gu yàlla xar def ca dara def ca dara macha allah xëcc bu daggul dikk macha allah gémmiñ gu yàlla xar def ca dara loolu olof a ko wax waaye a ko dëggal mhm. wa ma min daabatin fil ardi illa alallahi mhm. yàlla nee na lu nekk sama loxo rek ci responsabilité rek mhm. wërsëgam maa ko yor kon fa tabarakallahu lu am solo la kon ñu bàyyi ci xel xam naa temps baa ngi ñuy xoj waaw du ñu doyal ci yow xam nga yow moom mm-hmm. macha allahu taala kenn du doyal ci yow. Mm-hmm. waaye lu ah, dul doy fii sax. lu dul moom loo ci am day daal di doy loo mënta may sa bopp luñ la ca may nga daal di jël incha allahu taala dañ lay gën a dalalaat. fa mm-hmm. tabarakallahu rëccuwum luñ la dalalee. ngay sayda macha allahu taala di doomu daara. jaar ci daara macha allahu taala ba tey sa taxawaay ci pénc bi ñu xam ni lépp daara la génnul cadre daara ñu am fierte loolu waa PCS yëpp nag kontaan ci dalal bi nga xam ni dalal nañ la ko tey ci xam sa diine man du n'importe qui laay dalal boo xoolee sama émission lu ci bari man kese maa koy def mhm. bu may dalal nit dama koy xoolaat fa tabaarakallah ñu lay sant bu baax di la gërëm tey sa kàddu bu mujj lañ la waa sama kàddu gu mujj mooy di sant yàlla rek subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu dund def ñu ay jullit mhm. xàqan mhm. di sant suñu wayjur yi nga xam ne ñoo ñu yar jàngal ñu alquran ndax jur moom mënul defal doomam lu ëpp mu yar ko ak jàngal ko di sant suñu borom kër bi nga xamne mom moñu bayyi ba ñu mën ñew tok fi mhm. ndax bu dé dañuy wax ci soxna ak borom kër mhm. wax ci ndigal mhm. top ndigal bayyi téréem kon ñu ñew fi te suñu ndigalu borom kër wuñu fi di la sant yow suñu càmmiñ bu baax yarondo jangando ma sha allah nek wul rek gu rafet ta yàgg ah ñuy ñaanal wa télé bi yalla fi yalla sotti xéewal ba ñu di dégg fu ne ci aduna bi te lépp ànd ak yàlla di ñaan lu ñu mën a am yàlla nañ am yàlla mm-hmm. lu ñu mën a ñàkk yàlla bu ñu ñàkk yàlla mm-hmm. di kontaan nag ci Zahra boutique Daaru Ridwaan uh-huh. moom mi nga xam ne moo génn ak fii uh-huh. ci sañse bu rafet bi jërëjëf macha allah kon mu ngi noonu ñu dalaloon Fatimatu bintu Zahra Ndiaye muy Seyda macha allah taala di yëngu ci wàllu diine fa tabarakallahu eh, doon koo xam ni doomu daara la ñu koy kontaan di ko di ko di di ko wax ni duñ doyalu ñu te du yem fii xam naa rek ma def ni gaay di def xam naa rek ma def ni gaay di def gis ngeen fi ma génn tey fa tabaarakallaahu xam naa nañ ni oustaz moom waaw lu xew tey waaye ngeen xam ne rek Zahra Boutique moo fi jaar fa tabaarakallaahu ku ko soxla ci lu mel nii rek da koy woo ci 77 346 53 54 macha allahu taala yu rafet lay jaay yu am solo macha allahu taala boo leen ko seetsee rek di ngeen ko boo leen ko woowee rek di ngeen ko jot ci numéro boobu incha allahu taala ñu gërëm ñépp nag ñu sant ñëpp euh, sant papa macha allahu taala ramatulaay euh, Malick Laye Diouf ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci kamara bi ñoom ñëpp ñu leen sant di leen gërëm di kontaan ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey jàpp rek too bàyyi noonu la jàpp rek too bàyyi ñu ngi ci naaj bi yaakaar naa nag ker gaa ngi ñëw la yàlla waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wasallahu an yatiya bil fath aw amrin min indihi loolu nag laa leen di wax nañu jàpp rek too bàyyi na incha allahu taala dina neexi ci kanam ñuy gërëm nag tamit borom télé bi Pape Doumbia prestige bi nga xam ni fa tabarakallahu taxawaay bi yépp ak yitte bi yépp la def pour Thiès rek am loo xam ni communication boo xam ni message yu bari nañ fa jàll ci wàllu diini ci wàllu àdduna kon dañ koy ñaanal yàlla mu gën koo mën ñuy sant ñépp incha allahu taala di gërëm ñépp di la sant di leen jox dig daje incha allahu taala yeneen thème ak seen émission xam sa diine seen mbokk oustaz Ousmane Mbaye